Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay delloo nuyu di la ziar kilifa gi di nuyu waa Galsen ah. Galsen TV Galsen TV Galsen TV yaay ci Galsen TV waaw Galsen kon maa ngi leen di ziar di nuyu internet yeeg ñëpp ñu koy koy seetaan daal. ak ñu koy bàyyi xel. xam nga yow yow képp ku la xam ne nga yow. Mm-hmm. ku xam làmb nga. yàgg nga si làmb. suba nag dañ dem bés bés bu mag bu mag a mag bu gars yi doon lu gars yi di wax diggante Tapha Tapha ak Balla Gaye de ñu bëggoon na nga jël point par point nga analyser ñu mbëri noo leen gisee Tapha Tine noo ko gisee Balla Gaye noo ko gisee. bon xam làmb gi sax xam naa ne dama cee xam rek parce que ñun moom comme li ñuy wax rek yàgguñu ci mais xëy na ñàkkul am na lu tuuti ci xam ñaari mbër yi ko seq tamit wax dëgg yàlla mën naa ne am na lu ñu xam ci ñoom bu leen xamul bu ma leen xamul à 100 pour cent am na lu ma xam ci ñoom parce que li tax loolu seen bëre mbapat bi ñu seen seen demi carrière quoi fekkee naa ko loolu yàlla dogal na ko ba tey ñu nekk ci les meilleurs xam nga nekk ay bi nekk ay mbër yu mag yoo xam ne tey ñu ngi au sommet de la yaakaar naa kon muy Tapha wala muy Balla rek fi ñu toll tey man bettu ma woon démb bi ma leen gisee wala bërki dem bi ma leen daan gis ñu nekk ay xale xam nga di nekk maanaam di yëngu ci wàllu bëri tey bu ñu yegsee fii rek nekkul lu nga xam ne lu may bett la dèjà kon yaakaar naa ne sant yàlla ci à ce que ñoom. ñu fexe tey ci seen biir vie nekk ay mbër mais ñàkkante ñàkkante ba yegg si tey ci niveau bi ñu yegg si defe naa loolu c'est pas facile euh, ñoom ñaar tamit mën naa ne ci wàllum bëree ne nekkul ni bii mooy si la première fois non non non bëree nañu Stade Assane Diouf Mbapat moom méttee méttee métti ñoom ñaar final pour wane ne rek ñoom ñaar ay vainqueur lañ ma sa doon Mbapat mu tar mais keroog Balla moo gañ a Tafa ñu jógewaat ca moo ñëwaat yàlla dogal ñu bëree arène yàlla mayat fa Balla ndab mais ci diggante boobu nag Tapha Tine wax dëgg yàlla moom tamit bi mu jógee ci yooyu dugg na fi ci TNT euh, bi tournoi TNT am fa defet bu ko surprendre digganteem ak ki nga xam moom mooy Ama Baldé wala bu surprendre surprendre ñu bëri parce que li ta li taxoon dañ jàpp ne xëy na Tapha ak taxawaayam ak yooyu Ama waru koon daane noonu quoi yaa ngi dégg ñu bëri joxoon ko favori combat bi mais nag favori nekkul ne yaay gagné hmm. ñàkk combat boobu xam nga mais ba mu ci jógee nag depuis lors defe naa ne kenn déggaatul fi ñu tafaatin mu ñëw TNT boobu def après daf après guy gi sos ku ne gis na ak ñoom jóge fi ñëw continuer moom ak Yékini Senior gis nga jël bu rëy ba mu ko daat Amadou Bari moom ak ki nga xam ne moom mooy euh, Boy Niang combat ba gis nga avertissement yam na mu ko tàncee Boy Niang jël ay cinq avertissement ci tir bu gàtt mook Bombardier gis nga ba mu ko sëkkatee jàpp ko bëgg def action mu Bombardier blessé combat ba yom fa gis na moo ëmb seen bërki dem mel ni kon ci diggante boobu nga xam ne ñàkk na combat yi dafa def na fi parcours bu amu am solo maanaam màgg na fi sportivement parlant maanaam li mu doon def li mu doon def li mu yëngtu muy sport amul rupture dagg-dagg amu ci boo contraire dafa gën a continuer bu jógee ci defet yooyu ma la wax dafa gën a continuer di gën a progresser yàlla dimbali ko ne tamit mu daje ak ki nga xam ne moom mooy Eric Favre Eric Favre gën ko dimbali gën ko jàppale ñu ànd ñoom ñaar liggéey nga gis Tapha Tine ak lu la waay mën a wax da ngay xam ne kii c'est un athlète loolu moom mooy li yàlla dogal moo am ci moom fi mu nekk nii athlète boo xam ne at mu ne da koy gis mu gën a progressé loolu moo nekk ci Tapha Tine adversaire tamit bi nga xam daf ko daanoon bi mu ko daanee parce que daan dégg roi des arènes ci Yékini teg ca Tapha Tine daan ko après ba mu ci jógee waatee gis nga jafe-jafe yi Eumeu Sène daan na ko fi mu gàddaay dellusiwaat si làmb bi mu dellusiwaatee bëre ak Gris Bordeaux combat bu métti Léopold Senghor gagné Gris par ay avertissement mais bon dikkaat na jóge ca loola jël Modou Lo dem INSEPS kooku nekk tamit bu jëm bu rëy bi mu dellusee ñëpp na Balla forme bi ñëwaat mu bëri ak Modou combat bu metti tamit Léopold Senghor gagné Modou ay dégg mais par la suite nag gis nañ ni mu li fi duggaat ci diggante bi ñàkk na fi combat ak Boy Niang ñàkk fi combat ak Bombardier gagné fii ki nga xam moom mooy Gris Bordeaux mais combat boo xam ne si biir na ci ça veut dire que kon boo ci booba ak tey moment la wax nii ci ñoom ñaar ak fii ñu dikkaat tey da nga naan ci wàllum progression ci es maanaam sportivement parlant ak ci maanaam athlète wax dëgg yàlla da gis ne Tapha moo ci gën a nekk. parce que dernier cinq derniers combats Tapha Tine yëpp daf ko daan. voilà Balla cinq derniers combats yi trois victoires am ci deux am ci kon ça veut que Balla moo gën a Tapha moo gën a performant. da mm-hmm. dégg mais nag loolu moo dem tay di dem di dem di dem ba yàlla dogal seen combat taxawaat bon combat bi nag euh, bi mu taxawee ñëpp jàpp nañ ne ñëpp a ngi doon wax sax naan. muudu ak Tafa. moo nekkoon mais malheureusement nit ñi mujj ñu am loolu. Hmm. ñu mujj am Balla ak Tafa mais Balla ak Tafa lam du ko dàq ndax revanche bi. Hmm. mais Tafa ci biir waxam nee na la moom ñëwul da daa mel day door a bëreeg waa ji nee na ko hmm. nangu naa ne yaa ma daan dafa mel ni damay doog a bëre ak yow. Balla ne ko xam nga ma. xam nga bu baax a baax a baax xamante nañ man ak yow ñu nekk ñaar ñoo xam ne tamit en communication wane nañ seen bopp bu baax a baax ku ci ne am na façon boo aborder sa combat mais fi ñu toll nii nii boo bëgg depuis lors ma leen gisee arène nationale ñu présente leen ak biñu demaatee des ak bëritu démb samedi wala suru tam xarat li amaatoon ba tey ci communication wala nga leen di gis di dégg ñuy wax da ngay xam ne ba tey rek ku ci ne yaa ngi dalal sa morom fiir mm-hmm. yaa ngi nax sa morom ci ay biir wax ñu ngi naxante la preuve gis nga open press yu bëri ki dem ñaari open press lañu waxoon day am ci même jour Balla moom moo def Tafa point de presse la préféré def ko te gis nga abima yi foofu tamit da ngay ñëw nga xool que ni Balla gis nga bi mu ñëwee ba ci fi nga xam ne moom mooy euh, Amadou Bari blouson bi mu soloon daf ko summi dese débardeur ak benn kilote boo xam ne mën nañ ne pàcc comme ni ñu koy waxee mm-hmm. comme ku nekk sa biir kër di waaw waaw loolu di wane forme tax laaj naa ko mu ne parce que lii lim li tax mu def ko mooy daf ko def nii rek sentir ko def ko ak itam comme nañ ki muy bëril moo ko ëpp doole moo ko nangam mais bu jegee lañuy ñuy xam dafa moom il préfère toujours di nëbb li mu yore ndax kere bàyyi laa bu mu sol teg si kaal ak mbaxanaam doo mën a xam kii exactement naka la euh, fekk su mekkuñ dimanche rek li waaw suba insha allah li war a feeñ yëpp du feeñ mais nag combat la boo xam ne encore une fois euh, ku ci ne am nga ci ay possibilité pour gagner moo xam muy Balla moo xam muy Tapha ku ci ne ci ñoom ñaar ak ngay possibilité parce que li tax ma wax ko mooy ñoom ñaar dañuy dañoo mën a bëri mm-hmm. dañu nag bokkul bëri mm-hmm. bokkuñu bëri Tapha képp ku la ne mënta bëri rek da koo man mi ko seetaan début carrière am mm-hmm. ca kone su euh, rëbës bële yaa ngi dégg muy contact nekk xale di màgg ci làmb ak jël yi mu daan ay mbër ku la ne Tapha Tine mënul bëri kooku dèjà xamul Tapha wala mu wax la woo supporter mais ku mën a bëri la jekku nañ ko ci lamb mu daan jekku na mbër daan ko te loolu mën a bëri ñu jekku la nga daan da caa bokk kon mbër waada mooy tafaati loolu moom lu leer la Balla itam ndax daa mën a bëri loolu du xibaar loolu du information ñoom ñaar nag dañoo nekk ñaari mbër yoo xam ne nii ah euh, tey defe naa fi ñu dajawaate mooy fu baax fi ci ñoom ñaar. mën na wax physiquement. Mhm. mentalement ñaari mbër yëpp par nañ waaw loolu laa gis man mentalement pare nañu physiquement pare nañu ndax li lay wan ne mentalement pare nañu ku ci ne ni ngay wax sa morom daf lay dafay wane ne yow mentalement pare nga. mais tey jii mën nañ gis analyse parce que tamit suñu suñu waxee côté physique mën nañu xam ne que comme Tapha moom mooy côté favori favori physiquement mooy favori jàpp ñu bëri lañ jàpp quoi mais tey de suñu demee si côté mystique kan nga yaakaar ne mystique bi moom moom la a favorable quoi. non xam man mystique ma ci faral di sori. Hmm. non non waxul ci li nga xam dama ci dugg ci làmb man làmb sa préfère wax ci aspect technique bi ak ñaari mbëri seeni i parcours yu mel ni ki noonu quoi comme man yooyu yoruma ko te du dox ci yooyu sa préfère bàyyi loolu foofu man daal li ma xam ci mbër mooy booy ñëw ci bés na nga pare ci wàllum sport na nga entraîné yaa na nga def li nga wax na nga contact na nga def ay séance de boxe li nga xam ne da ko war a liggéey te mu lay complété ci bés bi ci wàllum sport na nga ca nekk ba suuf si nga mën a prêt yaa ngi dégg man loolu laa gëm parce que loolu mooy li nga xam ne sax mooy man jàpp naa ne athlète loolu mooy tax mu nekk à l'aise si bisu compétition parce que bu la leeree ne yow pare nga ah yow di nga yow bu la leeree ne liggéey nga bu mu leeree ne yow sa conscience bi tranquille na ne wàllum entraînement moom xalaatoo ci lenn bu combat gaawee bu yéexee lépp yow mën nga seere parce que sa cardio liggéey nga ko liggéey nga lépp la war a liggéey ci wàllum forme physique su keroogee laa bés doo ci ñëw di dute loo bëgg a def da koy def hmm. doo jar sax ay du jar sax ñu lay conseil conseil yu bëri parce que pare nga hmm. mais nag boo parewul ah bu keroogee nag def nga gis mbëri ñëw ci làmb nga gis muy def yoo xam ne daf lay leeral dafa dafa am lu bëri lu ko dese hmm. parce que contact ba est ce que doy na ah, te mbër contact est ce que liggéey na effort physique yu doy pour cardio ndax bu combat yàggee mu commencé bàyyi yooyu yëpp des koy régler avant combat mais quant à wàllu mystique nag nañ ko bàyyi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo Babacar Babacar si arbitre sifflé hmm. analyser ñu combat waa waaw su arbitre sifflé foofu moom ku ne xam na ni Balla Gaye ni ñu xam ñun muy bëre ba fii la mu tàmba bëre moom gëm naa ne du ko bàyyi Balla moom bu arbitre sifflé bu defee round d'observation ak yow tamit du yàgg su ci paree day ñëw sa kaw parce que moom bëre day day si te bëreem daf koy bëgg a multiplier léegi bëre ak yow jóge fi noonu la mës di bëree làmbam Tapha Tine tamit nekk na mbër boo xam ne nii bu at bi soufflé foofu itam dama gis ne euh, moom itam bii passé dafa bal daf ko ërtal mu génn mu ñëwaat mu ërtalaat ko bala daw dóori ko ñu xeex dafa koor dóor benn bala dóoraat génn daw tibb ko daan bii nag foogu ma ne est-ce que façon boobu est-ce que noonu la ñuy bëre gëm nga ni Tapha Tine dina dox si kaw Balla Gaye mën na nekk. waaw waaw mën naa ko nangu mën naa ko nangu mais dox bi yëpp na ko teg ci yoon rek na ko teg ci aw yoon rek parce que combat bi tamit des koy liir la ngay ñëw rek bër bër bër bër jaxasoo nii rek def li nga bëgg a def def déedéet da ngay liir combat bi même booy dox ci kaw ki ngay dox ne xam naa bu Tapha bu dox doxee moog Balla dañuy daje moom loolu laa gën a gëm. bëri daal lay jeexee dóor mu daan nag. waaw dóor mu daan dóor bëri dóor ñaari Tapha Tine Balla Gaye seen loxo yi ni mu diise car macha allah buñ fëggante ay coup buñ dóorante sam waay ku ci jël coup mâchoire nga wala nga jur coup ci tefa wala nangam man nga man nga mën nga réer ci combat man nga sax yegg teer combat mën na fa sax jeexe loolu kay maara day daal la dóor mu daanu koy ak a cee mën a am mais jël bu ruit ak a cee a am dégg nañu li bëri gars yi naan dóor mu daan dóor mu daanu quoi waaw non loolu xam nga fi mu nekk nii moom fi mu nekk nii lamb bu tolloo fii ku ne da ngay wax mm-hmm. ku ne di nga wax Babacar dina wax keneen wax keneen wax keneen wax mais est-ce que loolu maanaam mooy làmb làmb ji balaa mën a balaa nga tey mën a wax lu wóor dëgg suba ñaari mbër yi ñëw ci biir làmb ji suba ñaari mbër yi bu ñu summeekoo ñoom ñaar ba dara suñu kaay leen dem ci géew bi bëri ji laa su keroog du bëri dina feeñ waaye nag fi mu nekk nii moom ah ku ne da ngay natt rek ni may natt di wax noonu la keneen di natt di wax ak yu mel ni ki ñoom moo tax duñ ci bëgg sax di ci xuuti ci wax yenn wax yi parce que li ñu xam mooy li ma xam daal mooy ñaari mbër yu am jom ñaari mbër yu dul tricher ci biir bëri ñooy bëri suba ñaari mbër yu yàgg a mbër nit jàpp si gémmiñam ñooy bëri suba. kenn ki ne victoire Tapha wala victoire Balla Gaye fan la lay yóbbu defet seen defet aussi. defet baaxu ci si kenn si ñoom ñaar kenn ci ñoom ñaar la arrangé ndax dafa ascension bi mu nekk maanaam ni muy yéege ñu ne woon combat royal bi sax la waroon bëri ji. far kooka bërewu ko tey defe naa ne diggante Tapha ak Modou Lo Sénégal yëpp koy xaar. waaw combat la moom nag moom xamuñu lu fay xew ndax làmb reenu ñàmbi la waaye ku ne tey même dama naan sax. Euh, même Tapha Modou ak lu fa mënoon a xew Modou ak Tapha dañ koy yàgg a réclamé yàgg gës koo dox muy muy ësëg musuñu defe naa loolu dafa nekk combat boo xam ne ñëpp a ngi koy rêvé di ko xaar ñoom ñaar musuñu bëri non non musuñu bëri ah, moo tax mu ni la euh, euh, defet arrangé wu ci kenn ndax Tapha am na lu mu soxla mooy couronne roi des bi ñuy wax da koo bëgg xëy dégg te bëgg na ko yóbbu Bawol loolu moom lu mu bëgg la Balla gay contre performance yi mu nekk yi mu def ci at yi xëy dégg li ko mën a indiwaat ci làmb mooy combat bi suba daan ba daan Tapha waaw looloo ko mën a indiwaat parce que Balla bu daanee day dafay daan pour dikkaat Tapha nag su daanee day continuer moom ci lance bi mu nekkoon rek Balla su daanee en tant que empereur war na mën a jëlaat roi waaw mais parce que parce que euh, empereur bi promoteur bi tëgg làmbam moom moo préféré am lu mu tegal ñaari mbir lool lool loolu man ni ma ko gisee gisuma ci lu négatif non non non au contraire parce que xam nga la moo tax motivation la motivation la maanaam dañ dañ leen tegal benn affaire ngir motiver leen parce que tey bu ñu la nee boo daanoo di nga am benn couronne boo xam ne liggéey nañ ko nangam am benn somme boo xam ne weer bu dee dañ la koy jox ravitaillement terrain wala oto loolu kay ku sañoon sam waay Euh, mooy loolu finaalu Ligue champions sax bu jotee at bu jot est-ce que xaalis bi du yokku mm-hmm. Coupe d'Afrique est-ce que at bu jot xaalis bi du yokku mm-hmm. organisation bi day gën a parfaite mm-hmm. drapeau résultat bi nga xam ne moom la ñuy bëri fii muy làmb at mu jot boo xoolee ñaari at yi bi am Saint-Louis bi am Mbour bokkut ak yi xaalis bi gën naa yokku ci mbër yi organisation bi gën naa jaar yoon loolu li promoteur bi def loolu Albouraq def loolu motivation la rek pour man dafa jël trophée tegal leen ko tuddee ko empereur pour motiver ñaari mbër yi te itam motiver yeneen mbër yi ci des loolu motivation kanta nag euh, roi bi jàppal ne ñoom ñoom ñaari mbër yëpp ku ci ne bëgg nga laale jiwaat ak Modou loolu moom ku la ko ci wax ak ku la ko ci waxut ak yëpp ñoom ñaar parce que képp ku daan moom directement da ngay dem loolu ñoom ñëpp ko bëgg da ngay daje ko bëgg te Modou nag mu ngay bëri ak tam dañuy bàyyi ba mu tas ba xam dafay taw waaye li am solo daal mooy lambi suba ji daal ñu ngi wax amateur yi ak ku ci waaye mën a nekk nañ ñëw ci sport ci sa fair rek comme li may wax rek Balla ak Tafa bañ leen xamee ba tey seen début carrière ba nii mosuñu leen a dégg ñu ne wàllu ñu dégg leen ci wàllum violence wala yenn kii non non mosoo leen ci dégg au contraire bëree dem daal nga leen xame ak lu ñu mën a am arrêté bi bees bi 19h30 la wala. waaw man moom dama jàpp ne làmb dafa war a am heure bu muy war a yàq mm-hmm. parce que làmb itam ñu di fa nekk ba 23h man loolu d'accord ma ci. Ah parce que ay Sénégalais dañoo ne ci diaspora bi te lamb ji léegi dañ koy jaay par ay code ñoom ñu jënd seen ay code wala seetaan lamb imagine toi nga nekk stade arène nationale fii Sénégal 23 heures boo demee France ñaata heure lay doon ah nga dem Allemagne mu nekk une nga dem Espagne mu nekk une mm-hmm. te ñooñu war xëy 6 heures du matin liggéey wala 5 heures tamit da ngeen parce que ñooñu ñooy consommer bi ñoo koy jënd mm-hmm. ñooñu dañ leen di ba à ce dañoo war a fexe ba loolu mbir mi noonu ko seen see def ñu organiser ko mu jaar yoon mbër yi bëree teel a bëri au moins mu guddee ba guddi warta passé vingt heures mu tas ku nekk dem ñibbi ci jàmm ko jaajëf Babacar kontaan nañu trop merci waay